بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي نغي سان سونو بروم aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi di ñaan jàmm yàlla ak yërmandeem ak njëggalam mu dëkkee ko dotti ak xéewalam ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nun ñii nu ngi ñaan sunu boroom mu defal nu an yaj'al alquran alazima rabia qulubina ونور صدورنا وجلاء احزاننا وان يتقبل منا انه هو السميع العليم وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم dellusiwaat nañ beneen yoon ci sunu ron keppaaru xam-xam ci tafsir alquran alazim sunu ñaari bind yi weesu ñu ngi nekkoon ci suuratu talaaq tey mooy ñetteelu bind insha allah ci suratu talaaq comme niñ ko diggee woon ndax xam ngeen ni saar wi saar la wu am solo moo tax ñu xaaj ko ñeenti xaaj ñaar yi jàll na benn bi tay la bi ci des insha allahu ca semaine bële di ñëw lay doon ngir faram fàcce gën a am ñu gën a mën a jëriñoo waxi sunu borom ci saar wi borom bi da wax ni subhanahu wa taala audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا loolu incha allah mooy sunu ñetteelu bind ci tafsir alquran alazim fi hadihi surati almubaraka suratu nnisai alqusra yaani suratu talaq saar wii de mbokk yi saar la wow comme niñ ko xamee saar la wu bari ay jàngale wax dëgg yàlla alquran sax nag léeg-léeg nit ki daf ciy wax day wax waxiinu ku saalit waxiinu ku saalit waxi ni ko saalit mooy ci wàllu lekk wala naan nit ki lu mu ñam xam ni lii kat neex na mu ñam leneen mu xaw a mel ni moom mu xaw a afale ban moo ci gën loolu daf lay dal ci téere yàlla bi nga xam alquran lépp am solo waaye léeg-léeg da ngay dal ci aw saar woo xam ni comme ni mu doon dalee saxaaba yeeg salafu saalix doon ju dal ba tey léeg-léeg nga jàng benn aaya day mel ni aaya ji daawu ko jàng bërki démb dama def benn seetlu boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn boroom xam-xam ci suuratul anaam yàlla xam ne ni bi seetlu bi jàllee man dama dama dama njëkk a laaj sama bopp ma ne man est ce que maa ngi doon jàng suuratul anaam seetlu boobu bu dul woon ak ragal waxtu gudd dinaa ci jaar waaye dama koy junj rek gis nga suratul an'am ba mu jeex yàlla lim fa ràbbale ci ay turam ak façon ràbbale yam ko ràbba ak tur ya war a ànd di ànd ba saar wi jeex yàlla xam ne ni boo ko tiimee da nga yéemu ci yàlla subhanahu wa taala maanaam sunu borom su comme ni gafuur ak rahim di faral di ànd shakuur ak xalim afu ak gafuur xam nga baal yi dañoo jege de boo ku seetlu suratul an'am boo jógee nga seetlu loolu jeexintali aay yi nekk an'am yépp ba an'am jeex aar bu aaya boo jàng rek xoolal nam jeexee nga calcul aaya ya fa sunu borom boole ay turam man li ma njëkk a laaj sama bopp mooy man est ce que man doon naa jàng parce que doon nañ ko jàng waaye est ce que doon nga ko jàng mooy yow da nga ko doon jàng rek dem daaw ko seetlu ndax seetlu boobu musuma ko def suratul an'am ci ngay gën a dellu maanaam dafa mel ni alquran day beesaat taq taq taq tey ci yow ndax man moom wax dëgg yàlla gëstu ba bi mu jàllee suratul an'am moom comme saar wuy doog a wàccaat firndee ngoog bu lay wan ni mbokk yi alquran kiimaan suñu borom la te it nag ay mubashiraat am na ci gis nga alquran nit ñaa ngi ci jariñu ba tey na xam naa duma wax sunu saar wi yàlla def na ci barke ndax am nañ bar yaakaar ci saar yépp waaye saar wii moom insha allahu min almubashirat wa nasal allah an yataqabala min aljami ah saar wii de insha allahu am na jeexintal wu mu def loolu moom dañ koy bishaara sunu bopp bishaara ko sunuy bokki jullit nu ñaan ñun ñépp sunu boroom mu defal nu ak nangu ndax kiy wax ak kay déglu ak kay teewlu ak ka waaxu ñëw kenn ku ci nekk am nga lu suñu borom waaye wax dëgg yàlla minal mubashiraat saar wii moom waxuma def na jeexintal de def na ay jeexintal yu nu yëg lii nag maa ngi koy wax min baabi shukr di sant suñu borom waaye maa ngi koy waxaale ngir min baabi kenn ku ne ci xam ni aji gëm yàlla bokk na ci point fort am an yakuna waqaafan li kitaabillah mooy loo jàpp lu mu dëgër di ni mu dëgëree bopp kenn mënu ko wax ba mu dégg bu alxuraan waxee rek nga yàbbi loolu nag mbokk yëgle ni mi ngi am ba tey du ma wax benn de ndax am na yoo xam ne doo ko mën a nettali da nga koy junj rek ay sëy yoo xam ni amoon na ay jafeñ-jafeñ yu tar te metti ginnaaw bi seeni borom dégloo li jot a jàll ci saar wax dëgg yàlla jafe-jafe yooyu dañ alhamdulillah loolu ñu yëg ko ay sëy wala man koo tuddee noonu ba ci ñaar yoo xam ni seeni borom teqalikoo daa amoon ci seen diggante bi ñu dégloo njàngale mi wax dëgg yàlla seen xel nekk na ci delluwaat ci say bañ nekkoon ba fii nu toll nii ñi ngi dox loolu am na ci boo xam ne man mii maa koy dox loolu nag maa ngi koy wax ngir nu sant yàlla baax te xam ni gis nga nit ñu baax ñi ñii jéem a góor góorlu nga xam ni tey jii nee nga xëccit jooy mbaa ay yar karwaasi ci sa kaw ba sa yaram tàng te kenn dóoru la lu dul téere yàlla bi rek nga jàng moo dal ci sa kaw am na nit ñu mel noonu ba tey maanaam yii ma leen wax nii ay ishaaraat la di ay junjub waaye yëg leen na lu am la ndax man yëg ko moo tax ma wax ko kon alhamdulillahi rabbil alamin wa nasal allah an yataqabbala minna innahu huwa samiu alim wa an yatuba alayna innahu huwa tawaabu rahim mu nekk soññe ci ñun ngir ñu xam ni maanaam nit ki foo toll ci góorgóorlu ci quran rek ndeke am na ko la raw am na koo xam ni moom day jàpp ba mu dëgër kii bàyyi naa ko àddina ak allaaxira wax wax joo xam da nga yaakaar ni kenn dootu ko ci mën a génne téere yàlla bi génne ko ci nga gis koo xam ne dañuy fas yéenewuma koo def téere yàlla bi def loo ko lii kenn mënta tax ma ba ko téere yàlla bàyyi loo ko loolu moom ngeen yëg ni insha allahu am na falahul hamdu wa shukru moom rabbul alamin tey ñu ngi tàmbali ci askinuhunna min xaytu sakantum min wujdikum ginnaaw bu darsu bu njëkk bi jàllee ci ñu xam tolaaq ak conséquence yi nga xam ni moo ca nekk ak matukaay yin war a jël ba fase bu mu am te loolu duma ci jaaraan ndax defoon nañ ko ci darsu bu njëkk ba ñaareelu darsu bi indi nañ attey lenn ci attey kuy eddawu ak nan la war a eddawoo loola nag mooy continuer lan moo ci wàllu ku góor ki nag tey ndax bii passé wàllu ku jigéen ki la woon waaye tey nag askinuhun na ku góor ki moo ko moom as lëf la ca ku jigéen ki moom sunu boromu ni askinuhun na soxna yi na ngeen leen dëkkal bu ñuy eddawu min xaytu ca foofale nga xam ni sakantum fa ngeen dëkk min wujdikum ngir seen bopp laay jooju nag lu bari ci mu fassiru niñ ko firee mooy li nga xam ni sa man-man foofa la toll te it nekkut lu bon te it yow loolu nga am amoo lu ko gën a baax loolu nga war a dëkkal soxna si buy eddaw lu am solo ngoog te nun góor ñi nag maa ngi fàttaliwaat maratan thaniya mbokk yi nañu ragal yàlla ci ni ñuy fasee wattaqullaha rabbakum nañu ragal yàlla ci ni ñuy fasee mbokk yi ñun ni ñuy fasee ak ni ñuy takkee bokkul de da ngay gis koo xam ni takkam ni mu koy waajee ni mu koy préparé rafetal booy dem yóbbu ca goraya looy joxe booy def nangam mbokk yi nañu ragal yàlla ci ni ñuy fasee ni ñuy fasee ñaaw na de te waxoon naa la ci dars yi passé wa ukarriruha maratan uxra te wala azalu ukarriruha mahma tazakkartu dinaa ko fàttali te duma dañ di ko fàttali saa bu ma ko fàttali ko mooy bari na boo génnee ci sëy gàkk gàkk bu la dul wàcc mukk topp la ndax dina am ku génn ci sëy nañ wàññi son bi dina am ku génn ci sëy koo xam ni ak wor daa am mu doog a génn ci sëy bi te wor moom bu xësee am olof yi dañuy wax ni saa boo woree bala ngaa faatu dina la wóor ni da ngaa wor am na koo xam dafa fecc kóllëre doog a génn ci sëy bi ku fecc kóllëre ren ba déwén mu jig la olof yi neen dañ laa tuumaal rek waaye li ñu wax du dëgg aka ñoo wax foofu moom olof aka wax dëgg surtout fecc kóllëre am na koo xam ne dafa tooñ soxna si doog ko wàcc kazalika jigéen ñi da ngay gis koo xam dafa war génn ci sëy ba dafa ila axiri tooñ génn ci gis nga yii gàkk gàkk yii foo jaar mu feeñ ci sa dund même boo amee beneen sëy mën na faa répercuté waat mbokk yi wattaqullaha rabbakum mooy nañu ragal yàlla ci ni ñuy fasee fa imsaakun tee bu dëgër bi maarufin ci njekk ak teraanga ndax dañ la koo may nite ki noppam la aw wala boog soo mënta yore yàlla moo la wax xoolal ndigalal yàlla ni mu fooree tasrixun waccal soxna si bi ihsaan te nga rafetal ah mbokkum jullit mi rakk jàmbur nga yore de sàllaw am nga rakk ki nga yore jarbaatu jàmbur la am nga ñu nekk say jarbaat ki nga yore doomu jàmbur la am ngay doom ki nga yore sëtëb jàmbur la yow mii di nga ami sët ñaan nga ko yàlla bor la de bor la de wa man yazni fi bayti qawmin bi alfay dirhamin waykat ba nee na ku dem kër jàmbur fere fa dix mille njaalo fa mu ni benn waay dina ñëw ci sa biir kër dix francs lay fere fa sawfa yuzna fi baytika bi dirhamay bi dirhamin gis nga da ngaa dem fere dix mille njaalo kër jàmbur bor bi bu ñu la koy fay nit dina fere juróomi dërëm wala benn dërëm fayee ko fajee ko sa biir kër parce que bor la bu ñuy fayante benn waay dafa génn nekk ci jaayukaay bi di jaay kenn ku jigéen daal di ñëw ni ko jaay ma xam naa comme ndaw si suñu borom da koo dénk taar mu ni ko nii di ko jaay jaaykat bi ni népp loxo bi téye ko xam nga loolu bokk ci njaay waaye nag bi mu ne nikk loxo bi téye ko xelam dem ci yàlla mu ragal inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim mu bàyyiwaat loxo bi jaay ko ndaw si dem mu wàcc tëj butigam ñibbisi ci kër gi fekk soxnaam di jooy mu ni soxna si looy jooy mu ni ko suñ dëkkandoo bii doon root si ci kër gi moo ñëw root si tey bi mu root see ba pare ma koy romb mu tël sama niqaab bi xool sama xar kanam gi daal di wàccewaat dem yoon jabar jaa ngi jooy jëkkër jaa ngi muuñ mu ne ko yow ah li ma la wax ngay ree mu ne ko wallaahi réewuma loolu dama xam ni damay nikk loxo bi sama xel dem ci yàlla def naa bàkkaar waaye ma bàyyiwaat ko moo tax bi ma yàllay fay kii muri sa niqaab bi xam naa loolu la ko yàlla fay moo tax mu bàyyi la wóor na ma ni su ma defoon lu weesu téye loxo mu def lu weesu ni téye niqaab mu ne ko man loolu laay ree yow sa bàkkaar ngay jooy man dama yéemu ci yàlla gis nga de gis nga am na yoo xam ne sedd gis nga yàlla subhanahu wa taala ku kéemaane la ku kéemtaane la moom suñu suñu borom ci li muy def gis nga ñaawal gi nga def nii ci fase meeg wala génn ci sëy bi wallahi boo amul sens mën naa dalaat mën naa dalaat ci sa kaw mën ngaa tàbbi ci beneen sëy sax mu dal foofu nga defee ni da nga amul sens dañ laa liggéey fekk ahankay kenn liggéeyu la yaa liggéey sa bopp ndax léeg-léeg am na ñoo xam ne liggéey bi leen yàqal ñoom ñoo ko liggéey mbokk yi wattaqullaha rabbakum mooy nañu ragal yàlla ci laa tuxrijuhu min buyutihin soxna si bul ko dàq moom bañ koy indi muy seetu si dàquñu ko woon dañ koo jekk-jekkal ba mu jekk jox la ko wa ashiruhunna bil maaruf yàlla muy tee nga téye soxna si téye bu rafet fa in karihtumuhunna même bu dee ba niixatu la sax xoolal allahu akbar mbokki alquran alquran dafa kéemaane xoolal yàlla waxul ni sax bu la niixatut ba ko xam nga téye ko ci njekk mënoon naa ànd ak bu la neexatut ba ko waaye dañu téye ko ci njekk fa in karihtumuhunna même boo dee ba ni bëggatuma ko yàlla mu ni fa asa an takrahu shay'an amaan na sax di yaa ngi bañ mbir mi wa yaj'al allahu fihi xayran kathira est ce que xam ngeen ni bunti wërsëg bunti xéewal bunti jàmm yépp yàlla da koy tijji par rapport ak nit ki nga xamante ni moom nga jël en charge ci moom moo tax nga gis boo amee soxna yàlla yokk sa wërsëg nga am doom yàlla yokk sa wërsëg nga yor njabooti jàmbur yàlla tàggatal la loo leen mën a yoree yàlla zu xikmatin baaliga wattaqullaha rabbakum mooy ragalal yàlla ci ni ngay fase ñun ni ñuy fase mbokki rafetul de te saa bu amee rek liy waral mbokk di yàqu mooy rafetal ga moo manqué su ma nee nag duñ ko def tekkiwul ni ñëpp ñoo ko du def waaye am na ñu cay góorgóorlu dañoo bari wut dañoo bari wut suñu borom mu ni askinuhunna téyal soxna si nga dëkkal ko min xaytu sakantum fa nga xam ni fa ngeen dëkk min wujjidikum ngeen seen bopp loolu nag mooy tekkiwul ni kër gi nga dëkk na ci dëkk bu dee loolaa fa nekk mu am loolu waaye li muy tekki mooy même bu fekkee da nga koy wutal fu mu dëkk da nga koy luyal l'essentiel nag conditions yi baax la bëgg a wax comme ku yore sa jabar ba tey wala tudaruhunna sunu boromu ni bu leen lor soxna yi li tudayiqu alayhinna ngir ngeen bëgg leen a xatal bariwaana ku sa soxna nanguwu la edd ci sa biir kër fekk du ci soxna si ci yow la parce que condition yi nga doon dund ak moom bi nga ko fasee gut soo ko doon remplir bi nga ko fasee mu nangoo eddawu ci kër gi waaye jigéen ji kat mënta eddawu ci kër gi ba noppi kenn mayu ko jàmm kenn mayu ko salaam ñu koy gaarawaale te it àqam joxuñu ko ko kooku nag wax dëgg yàlla day préféré dem kër baayam toogi fa nag wala tudaruhunna sunu borom mu ni bu leen leen lor te mbokk yi aayaat yi bokk na ci li nit ki war di gën a teewlu mooy kan mooy wax ak man kan gan kilifa mooy wax ak man yàlla ay directive moo jug bàyyi ko ci sunu borom ay awamir ay ndigle ak i nawaahi di ay tere yàlla ci boppam mi ngi mel ni maam jàpp li tatasawar jàppal ni sunu borom taxaw na ci sa kanam yow di la defal nii bul def li defal nii comme niñ naan la boo taxawee di julli jàppal ni yàlla mi ngi ci sa kanam sunu borom ni wala tudaruhunna bu leen lor soxna yi li tudayiqu alayhinna ngir ngeen man di leen xatal imam sufyan athawri toxal na jële ci mansuur mu jële ci abi duha mu ni wala tudaruhunna li tudayiqu alayhinna qaal yutalliquha fa ida baqiya yawmaani rajaaha xam ngeen mbirum fase te loolu dinaa ci ñëw léegi insha allah nam doon demee ak ni mu demee ci lislaam bokkut ndax ni mu doon demee mooy bu njëkk amuloon organisé wu fase naa la su ma neexee ma jëlaat fase naa la bu ma neexee ma jëlaat mën naa ne téeméeri fase bi yàlla subhanahu wa taala xoolee gis ni kat ci tàmbali lislaam sax loolu amoon na nit ñaa ngi foyee jigéen ñi sunu borom ne at talaaqu gis nga li ngeen di tuddee fase marataani ñaari yoon la bu tollanti ko rek ñàkk nga sa jabar loolu dafa dabe de loolu bàyyi leen ci xel loolu dafa dabe waaye même ci tàmbali lislaam fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la takkaat naa la fase naa la takkaat naa la ab boo xam ne man ngaa gis ko fase juróom-ñaari fukki yoon bi ñu gisee ni ñu ngi foyee jigéen te jigéen ku am valeur la ku lislaam fonk la ba tuddee ko aw saar kenn ci ñoom tuddee aw saar jigéen ñépp jox leen cër bay wane dañ leen a war a teral ormal leen yàlla mu ne at talaaqu gis nga fase nag bis ni ki tey marataani ñaari yoon fa la yem comme ni yéen da ngeen xamu leen bu ca yem da ngeen di fo fa imsaaku bi maaruf boo boo mënee téye nga téye aw tasrix bi ihsan wala nga daal di koy bàyyi mu dem waaye nag fii lay yem tey borom bi subhanahu wa taala mu ni wala tudaruhunna bu leen leen lor li tudayiqu alayhinna sufyan athawri ak ñeneen niñ ko firee mooy da ngay gis góor gu gu kàccoore sax gu bon nu muy def pour xor ñu ñal ku jigéen ki da nga koy wàcc nga xam ni ndaw si comme day jéem a sàmm jàngale lislaam ba tax mu nangoo toog ci kër gi bu edda woo ba nga jàpp ni edda bi des na une semaine wala trois jours mu daal di créer ambiance bu neex moom ku góor ki waxtaan ak soxna si ni ko xam nga li lépp seytaane la woon jub te fekk bëggul juboo xam nga lu mu ci bëgg léegi xam nga bu ko fayliwaatee léegi nekkaat na jabaram léegi jabar la mu toogaat ba mu neex ko mu daal di koy fasewaat xam nga day renouveler waat beneen eddawwaat kon mi ngi lor ndaw si am na ñoo xam noonu la ñuy def maam da ngay gis koo xam ne dafa bëgg a mbugal ndaw si fekk nii la koy mbugalee moom xam nga mu façon mbugal mii dem kenn xamul mbugalum lan la parce que daanaka day tromper nit edda bi des na une semaine te mere na ndaw si mer moo xam ni faw mu tromper ko te bu semaine bi jeexee ndaw si dana dem mbaa bu ko bëggee fay li faw mu takkaat ni muy def mooy waaw xam nga seytaane moo fi doxoon mën a yow ja wax a wax ba ba jubóog ndaw si ndaw si nangul ko ñu daal di àndaat léegi nag mu daal di bàyyi ba ambiance bi neex tuuti rek mu daal di xëyaat benn bis rek daal di koy wàccaat su ko wàccee nag ndaw si di gën a souffriraat gis nga jigéen ñii ñuy souffrir loo fii nga koy yégee balaa àllaaxira yent yàlla bi nee na allah allah fi daifayn allah allah ragal leen yàlla ci ñaar ñu lottu ñi jirim jigéen ragal leen yàlla ci ñaar ñu lottu ñi jigéen jirim saa boo gisee ku koy teral góor gu tedd la donte xadis la waaye dafa daayif nag fi akthari aqwalil ulama ma akramahuna illa karim ma ahanahuna illa laim xadis la boo xam dañ koy faral di wax waaye dafa daayif donte nag maanaa bi lu wér la xadis dana daayif fekk maanaa bi wér na kenn du teral jigéen lu dul ko tedd kenn du ko toroxal lu dul ko alko te it nag teral gi nga koy teral yàlla daf la ciy teral subhanahu wa taala waaye jigéen jiit na góor góor lu ragal yàlla respecté borom kër ndax amul kilifa gu gën a foor sa baay bu taxawoon fii ni kaay sa jëkkër taxaw fee ni kaay islam taxaw fii danaan la wuy jël sa jëkkër bàyyi sa baay te xam ngeen ne bu dee deret ak meen donc bàyyi gën a jege waaye bu dee fooraay nag garaatu góor arrijalu qawwamuna ala nisa moo ko monter ay garaat wala tudaruhunna bu leen lor soxna yi tudayiqu alayhinna da ngay gis koo xam ni maadaama soxna si sañ te génn kër gi day eddaw ci kër gi lu ma neex laa koy teg lu ma neex laa koy teg dëgg la góor sañ naa yar jabaram léeg-léeg nga gis nit def dara nga yaakaar ni kii dafa doyadal jigéen ji daf koy nangam daf koy mbugal fekk de daf koy yar am na ci droit ndax xam ngeen ni façon yi ñuy yaree soxna bokk na ci fa izuhunna waar lu ci topp wahjuruhunna gàddaay fil madaaji'i nag wadribuhunna am na lu ñuy tuddee ila moom laa fàtte woon ci dars bi passé lilladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arbaati ashhur dangaa jaar ci yarukaay soxna si te bii dama koy istidrak waaye waroon naa ñëw ca tàmbali suratu talaq soxna si da nga koo yar ci asalib yi nga am moyen yi nga am yépp mu dëgër te bëggoo koo wàcc am na uslub bu ñu tuddee ila ila daanaka tong laa ko mën a tuddee tong téye say kaf téye say ree téye say na nawa nawafilul qawli nawafilul qawli mooy lépp loo xam ci biir kër gi rek yaa koy def pour neexal kër gi waaye du war-war ba pare doon nangoo ànd ak moom ci kawlal 4 mois arbaati ashhur ñeenti weer léegi nag su fekkente ne nit ki tong ko avant ñeenti weer yi jeex ndaw si tuub dellu gannaaw te muy dëgg affaire bi jeex nga daal di commencé sëy ak moom su fekkee dem nañ ba ñeenti weer yi jeex te ndaw si delluwul gannaaw nag su boobaa ñaari possibilité mooy am mooy wàcc ko léegi wala qaadi yi ñëw ne hee sa waay wàccal sa soxna si qaadi yi moo daan mooy comme tribunal ni ma am bu njëkk ay qudaat ay qudaat yu mag ko maa ngi ko doon wax ci dund alxaafid ibnu xajar qaadi bu mag la woon day xëy di jàngale di jàngale ba tisbaar jot mu noppal tëdd tuut daal di gont di àtte ba ngoon jot saa boo déggee qaadi nangam rek fii ci Sénégal da ngay dégg ñuy wax qaadi ma jaxate kala loolu moo nekkoon lu moo indi tur wi nag qaadi ji loolu moo ko indi ku mënoon àtte la moom waa jooju qaadi ma jaxate kala léeg-léeg ñu nekkoon nettali ko ay xisas yoo xam ne léeg-léeg wax dëgg yàlla dafa dafa dafa mat di xam ndax njariñu bokk na ca xisas yi lil tat tatmiman lil faida benn waay dafa jëloon aw nagam dénk ko xaritam bi mu ko dénkee xarit bi dem tukki ñëw xarit bi ni ko dénkoom aw nag coow li ni kur kuy seede ñoondil ko xaad yi mu ni tekk dina am na benn dars mas naa fee leeral xisas yu mel noonu ci yàgg yi lu mel ni ndaw sa ji ñoon ku góor ko doon jaaloog moom lu mel ni ko sàccoon ñu takk buum nga xaadi muy nañ ko defaral kees gu nuroog keesu néew utal ko ay bën-bën waaye kenn du xam lu ne ci biir kees gi dana diis nag nekk benn waaye la waxtaanal fële ni ko yow da ngay tëdd ci biir kees gi ni nemm ñu tëj kees gi bu kenn xam ni nit a ngi ci biir kees gi mu ne ko yow moom yoral sa bigg ak sa fooy loo dégg rek bindal déglu ngay xësa bu baax bis bi jot waa ji nga xam ni moom lañ dénkoon ak jabaram xaadi ni leen xëcc leen kees gi déparé fii ngeen di ko diri di ko diri di ko diri ba ca garab gële ngeen tegal ma ko fa waa kii lu muy def nii muy def leen li ma wax rek waa ji ànd ak jabar ji ñuy diri kees gi di ko diri di ko diri di ko diri ba mu yàgg ndaw si mu ne gis nga di jaay sama loxo yaa ngi dagg mu ni ko non jàppal ñu dem rek garaaw nañ dem rek ndaw si demaat tuuti ni ko gis nga di jaay ragalal yàlla nga delloo nagu jàmbur wi xam nga ni moom moo ko man lii moom mënuma ca waa ji daal di bind parce que est-ce que dafa diis nit la def ba mu àggee ba ca garab ga mu dax waa mu ni gaa yi ci des yéen dem leen ngeen diri kees gi indi ko fii ma ko tegoon gaa yi dem di diri kees gi ba mu yàgg ku jigéen ki ni di jaay man sonn naa de sama loxo yaa ngi dagg de mu ni ko déet nan dem rek mu dem ba mu yàgg mu ni ko man mënatumaa dem mu ni ko sama alal la bu ñuy dee nañ dee suñu alal waa ji daal di bind bi ñu yegsee toog waa ji daal di génn ci kees gi ba mu génnee xanaa àtte ba jeex na de gis ngeen gis nga kooku yeewute yu mel nii nag xaadi yi da koy da koy soxla même borom xam-xam dafa war a yeewu gis nga xudaar yu njëkk ya comme nit ñi ni ñu amee woon kersa di ñëw di nettali li nga li nga gaar ci sa biir sëy nettali woon naa fi waa ji ñëw ah lu ngeen jote mu ni ko wax leen li mu ni ah kon li ñu nekk suñu biir néeg la ñuy wax kon baal naa soxna si la nga ko dem benn jigéen dafa ñëw daal di way ay way ci kanamu Omar ibn al-Khattab bokk na ca lam way mooy ah man de sama jëkkër ji jaamukatu yàlla bu mag a mag a mag la moom daal foo ko fekk ma nga ca sijaada ba foo ko fekk ma ngay naafila foo ko fekk ma ngay nangam di wax di wax di wax waaye kon yow luy sa problème comme lu ban problème nga am Omar jaaxle ñu woo imam Shaabi fekk moo nekkoon qaadi bi imam Shaabi ni ko nga ni lan mu ne ko man daal sama jëkkër ku baax la ku ragal yàlla jaamukatu yàlla naafilakatu guddi la waaw loolu lu lu jër ñëw tribunal di kalaame kon saa bi daal ni hee ko góor gi ragalal yàlla soxna joxuñu la ko pour ngay dëkkee jullee ka naafila ka baax ke nangam ameel nga ko àq ñeenti fan yu nekk boo mënee ànd ak moom loolu la ndaw si kalaame dem la ah wax dëgg mbir mi mbir mi commencement bi leerut de waaye mu jëntal gi leer na de àqam mooy ñeenti fan yu nekk bu ci sox bu la ci soxlaa boo ko mënee war nga koy jox boppam atte ba jeex wala kooku nu mu def ba xam loolu maanaam gis nga googu yeewute lislaam rek moo ko mën a may nit nuurun ala nuur leeru iman ak leeru alquran muy nuurun ala nuur yahdi llahu li nuurihi man yasha mu jeex hidaaya googu nag ci la nit ki amee tawfiq nga gis ay istinbataat yu yu leer teg jekk ay boromi xam-xam di ko génne ci alquran fekk ci nuur boobu la jaar yàlla sunu borom defal na ko ñun ñëpp sunu borom mu ni bu leen tëj soxna yi ngir di leen fitnaal wa in kunna ulaati xamlin bu dee dañoo ëmb nag fa anfiqu alayhinna fa anfiqu alayhinna mooy dee leen dépensé ci ñoom xatta yadaana xamlahunna ba keroog ndaw si di imbi léegi nag fii dafa am ñetti jigéen kii jëkkëram daf koo fase waaye pasem payli la kii jëkkëram da koo fase te du fasem payli fasem jeex na la ndax ñetti yoon la kii jëkkëram da koo fase du fasem payli jeex na waaye dafa yore ëmb ki jëkkëram fase ki jëkkëram fase te fekk fasem fayli la li wérti wóor maa xilaafin inda al ulama mooy yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd lenn rek nga dul def mooy sëy moom sëy ak moom doo ko def du ngeen ànd ci kaw la ndax bu ngeen àndee mooy fayli nga ko mu jeex fayli it borom xam-xam bu xam borom xam ñoom seen téere fi dañuy wax fayli ndax ay wax lay doon ndax ay jëf la est ce que bu ngeen àndee te waxu leen dara loolu fayli la ala kulli xaal xam nga ne ko ànd ak sa jabar fayli nga ko jeex na kooku kaam jeex na kii moom fasem jeex na lañ ko fase waaye yorul ëmb biñ ko fasee fasem jeex na jeex na ameelatoo ko dara kii nag fasem jeex na lañ ko fase mooy fasem ñett waaye nag daf caa jëlee ëmb ca fasem ñett ba borom xam-xam yi juyoo nañ ci fasem ñett mi comme xam nga bu nee ñett moom jeex na tàkk waaye est-ce que ak dundam kon yow la war ahan kay yow la war kooku même bu ko lislaam waxul woon yow la war foofu nag ma profité ci occasion tamit ba léegi wattaqullaha rabbakum wallahi léeg-léeg da ngay gis kocc mel ni ndaw si doom ji muy boot ak ji muy nàmpal ak ji muy waaj a feral daa mel ni juróo ko yow yow ndaw si doom si yaa ko jur la muy neex xanaa sax même boo defut ngir dara nga def ngir doom ji dox seen diggante da ngay gis koo xam ni mën naa wàcc soxna si du ko waxuma du ko dundal du ko dundal du ko toppatoo du ko seeti subhaanal malikil aala bu ma la waxee wala akunu mubaaligan fi dalik am na ñoo xam ne bi ñu wàccee ba noppi xamuñ seen doom nu mu mel maa la ko wax de lii maa la ko wax am na ñoo xam ne wàcc nañ ba pare te xamuñ seen doom nuñ mel seen doom mën naa màgg bay jànq mën naa màgg ba mat a sëyi te duñ xam nu mu mel loolu moom jàpp naa ni man lahu xifatu ak aqal ki gën a doyadi ci borom xel yi sax boo ko waxoon loolu du ko rafetlu du noonu de ak problème bu mën a am doom ji yaa ko jur wattaqullaha rabbakum ak lu mën a am ndaw si moo la ko jural gis nga coow li mënta yàgg mukk mukk mukk ba ndaw si nga fexe ba du nekk yaayam loolu mënta nekk bu yewoon a amaat jëkkër fu mu nee na doon waaye nag fu mu mën a am jëkkër nag doom ji yaa ko jur lu mënti xew fu mu mën a dem nag doom ja yaa ko jur yu mel noonu nga di ci bàyyi xel rafetal dëgg la nag léeg-léeg jafe-jafe famille dana am ndax jafe-jafe mën naa am ba tax parents yenn yi du ñu nangu nga ñëw seen kër wala ndaw si du ko wala nangam du tee defal la la war xam nga lu la war am nga xarit ba ngay labat amul ko doon àndal xanaa kooku dafa dem ñu di ko dóori yat wala yu demee noonu soo amee loo koy jox pour mu dund bu fekkee boo demee mu jur fitna bul dem waaye yónneel waaye yónneel yooyu yëpp ay mbir la yoo xam yu mat a bàyyi xel la kon kooku moom waroo koo dundal waaye bu dee ëmb am na ca yaa ko war di yore te xam ngeen ni faseem ñett fii ak ëmb baa ngi fi ndaw si daanaka ci sanon keppaar la nekk ba léegi donte ñett la sayee nag léegi waaye bu amee doom nag sañ na ni doom ji bala ma koo nàmpal danga may fay xam naa boobu nag mooy nekk lu bees tàq nag ci ñu bari boobu ñu bare bare bare bi daanaka day nekk lu bees tàq ci ñoom bu fekkee ndaw si am na doom sañ na ne doom ji duma ko nàmpal danga may fay danga may fay jooja nag mooy lii wa in kunna ulaati xamlin su dee ndaw sa daa ëmboon fa anfiqu alayhinna del dépensé ci moom xatta yadaana xamlahunna ba ñu imbi seen ëmb ya suñu imbee nag fa in ardaana lakum bu dee dañoo nangoo nàmpal xale ba fa aatuhunna ujurahunna da ngeen leen di fay da nga koy fay parce que fi ne amelatu la nàmpal doom donte nag doom ji moo ko jur war na koo nàmpal waaye am na àqu ni da nga may fay ma nàmpal doom ji ci naka qaadi moo fa nekk wala qaadi nekku fa imam moo fa nekk wala imam néew fa ñu jël ci aqraan yi comme jigéen ji nga xamante ni dañoo dem ba gis réglam jaxasoo na xamatuñ fu mu tàmbalee fu mu yem ñu ne ko seetal jigéen ñi ñaata jour la ëpp lu ñuy gis baax ñu ni sept mbaa huit ndax noonu la ñëwee ci xadis ñu ne ko kon jàppal sa aada mooy sept mbaa huit dañoo ñëw ci dëkk bi ñu ne waaw lii moom bu fi amee jigéen ji ñaata lañ koy jox par weer ñu ni faw ñu jox ko vingt cinq mille gàtt gàtt gàtt kon ci misaal laay joxe ndax war na ko mën na ko gis waaye ñu yëkkati vingt cinq mille yooyu jox ko fa in ardaana lakum bu dee ndaw si nangu naa nàmpal fa aatuhunna ujurahunna jox leen seen fay su fekkee ndaw si nangu la nàmpal nag ñu doog a wuti ku ko ku ko nàmpal moo tax sunu borom ni wa tamiru na ngeen waxtaan ba déggoo baynakum seen diggante bi maaruf ci njekk njekk li mooy ndaw si ragalal yàlla te nga xam ne doom ji yaa ko jur boo ko nangoo nàmpal ak boo ko nangu la nàmpal yaa ko jur kon nangu koo nàmpal ku góor ki ragalal yàlla ba même buñ la waxul woon sax joxal ndaw si ak payam ameel nga ko parce que nekkatul sa jabar léegi sayee doom ji sa doom la waaye ndaw si nekkatul sa jabar kon doom ji comme jabar ji nekkatul sa jabar te mi ngi toppatoo sa doom boo jëlee woon bindaan fii muy topp sa soon da nga koy fay nit day am xel. sariya sariya du yëfi nit de sariya du yëfi nit moo tax képp kuy tër ay jaamu yàlla yoo xam ni amul cosaan ci lislaam wallahi boo faatoo mbugal métti mi ngi lay xaar. yàlla day mer ci loolu am lakum shuraka shara'u lakum min ad-din ma lam yazam bihi llah ah nit ñi léegi dañoo am ay nit yoo xam dañuy taxaw palaasu yàlla di rëdd ay jaamu yàlla naan kaay leen sàbbaal yàlla nangam ku def nangam julli ci yonent bi gii da ngay am nangami tiyaaba ku jàng nangam ji moo gën alquran nga jàng ko yàlla mu ne ah da ngeen am ay nit yoo xam dañuy diir mbagg yàlla walaw la kalimatul fasl yàlla mu ne bu dul woon ak maa dogal ni àllaaxira bis terte leen la qudiya baynahum ba léegi faagaagal naa ñooñu aha walaw la kalimatul fasl bu dul woon ak yàlla dani ay def defam yàlla maanaam bokkul ko ni nit mer rek ñëw daal def lu lu mu programmé wul woon yàlla du def noonu walaw la kalimatul fasli bu dul woon ak yàlla dafa dogal ni nangam ji nangam lay am la qudiya baynakum yàlla mu ni ba léegi jug naa ci seeni mbir moo tax it bis dina ñëw ñu jug ci seeni mbir ndax bu seen àpp jeexee rek ñu xam ne wallaahi yàlla kenn du ko diir morom moo tax tashria ci boppam kenn rek ko man acharia huwa allah moo tax mu ne yonent bi yow amal fulla de summa jaalnaaka ala shariatin min al amr moo tax gis nga alquran moo koy alquran faw ñu di ko jàng faw ñu di ko jàng di ko settantal summa jaalnaaka ala shariatin min al amr teg naa la ci sharia ju leer naññ ju ci tege ci ay digal fattabiaha bu yeba nga topp boobu mbokk yi ku toppul sunna perte nga billahi ku toppul sunna perte nga alquran la di bu ko nit ki gëmul rek wedd na alquran summa jaalnaaka ala shariati min al amri fattabiaha toppal yi ma la wax muy sharia bi wala tattabi ahwa alladina laa yuminuun ñi gëmul yàlla bul topp seeni mbir mbaa su ma leen def mu ni innahum la yugnu anka min allahi shay'a tus lañ la mënalul ci yàlla même boo toppee nit ki te tegewul ci sharia sunu borom mu ni bu ngeen dajee fa seen borom tus la la dul mënal tus sunu borom mu ni du la ko mënal gis nga de su ko defee nag fa ngay xam ni kon li ñu war a topp mooy la yonent bi indi woon sallallahu alayhi wa sallam kon borom bi subhanahu wa taala mu ni fa in ardaana lakum su fekkee soxna si dafa waxtaan ak yéen nampal seen soxna fa aatuhunna jox leen leen ujurahunna seen ak pay ah xatta yadaana wala fa aatuhunna uju watabiru nee na na ngeen waxtaan nag baynakum seen biir bi maaruuf ci lu njëkk njëkk nag mooy yow ku góor ki ragalal yàlla kii sa doom la liñ lay laaj bu dee yoon na maana joxe ko ndaw si ragalal yàlla nag xam nga ni du ma nàmpal xale du du ma jox saa nangam mel xam nga yaa ngi bëgg a indi yu jafe nag yow it gis nga way laa boog ndaw si di xorñoñal xale bi parce que bàyyam fase na ma est ce que xam nga loolu day faral di am maa la ko wax jigéen dañ koy fase muy eddaw wala muy nàmpal wala muy yóbbaale ay goneem këram mere gi mere baayu xale yi dafay répercuté wu ci gone yi maa la ko wax dina am ci góor nag waaye bariwut moo tax yàlla foofu fa in ardaana lakum mel ni doom ji kon ndaw si jurutu ko foofu di nga ci déggee ni kon góor gi li mu ci am ci sentiment ci récupérer xale beeku su néew jigéen ji du ko ci am donte nag am nay jigéen yoo xamante ni ñoom am nañ yërmande ci seen doom boo toppatoo ñu toppatoo boo toppatoo ñu toppatoo moo tax sunu borom mu ni wa tamiru baynakum bi maaruf na ngeen waxtaan ci njëkk ak teraanga ba ngeen déggoo wa in taasartum su ngeen déggoowut nag ndaw si nangu la nàmpal wala li ñu la proposé mënoo ko wala boog ku góor ki bañ na lu man wala yu demee noonu fa sa turdiu lahu uxra nañ wut keneen ku ko nàmpal waa léegi bu ñu wutoon ku ko nàmpal xale bi lànk du nàmp wenn wenn nu ñuy def su boobaa dañuy forcer ndaw si c'est forcé da nga koy nàmpal parce que borom xam-xam yi dañuy wax ni bi mu nekkee ci biiru yaayam soxla wuñ fa woon kenn parce que yàllaa ko garanti bi mu génnee fii dafa tege ci ay loxo yéen ñi mu tege ci seeni loxo ba ngeen indi ko fii faw ngeen garanti ko moo tax possibilité yi ngay am boo nekkee ci biir yaay doo ko am boo génnee gis nga ne fasa tourde aw lahu nañu wut nàmpal ko bu njëkk dafa am lu ñuy tuddan almurdiat boo demoon ca kaw ga ci misaal da ngay fekk ay jigéen yoo xamante ni suma yu dëgër këng lañ dañuy bojj dañuy soq dañuy foofu dañuy wal lépp lépp mën nañ koo def dëgër mën a root ca teen ba mën a jukki wér tamit teg ci te kaw ga fa la jaww ja gën a baaxee donte du woon am kaw ga dama joxe misaal boobu rek ndax loolu moo ëppoon luy am ñaareel mooy fa la dund ga gën a baaxee fa la wér ga gën a amee te it nag bu dee saw làkk fa lay gën a setee moo tax ngay gis ku am doom nga daal di ko yóbbu ca àll ba seen dëkk pour mu am fa vacance wala nangam pour xam ay mbokkam yu bari fa nga koy xaman a xamee lii booy jàng histoire ñu naan la yonent bi sax alimatu saade moo ko nàmpal fii la ila axiri loolu moo ko waraloon moo tax it boo seetloo gone ga yaroo fële gone ga yaroo fële gone ga yaroo fii moo koy gën a fënax gis nga kaw ga la fa nit maanaam taax yi li fi net nit di def di damm yàlla xam ne ni fukkam kaw ga gone kaw gaa ngi koy def te duñ damm pour nga dégg foofu ñu ne diw damm na xanaa léegi bi ñu commencé li nekk taax yi nekk kaw ga
man maa ngi fàttaliku bi ñuy nekk àll ba di jàng ay at ak dëkk ba li muy rëy rëy rëy pour nga dégg ni diw daa damm man affaire dafa ma jaaxal damay toog di ko xalaataat dama ne ma daal affaire bi jaaxal na ma pour nga dégg ni diw dafa damm ak dëkk ba ni mu peuplé te ñu li la gis ku jóge ci mango daanu raas mango jot nga jóge ca kaw rek xabar ñi ko rek ñu tëll ci suuf jugaat faxasu dem sa yoon affaire yi jaaxal na ma lool lool lool lool nga gis leen ñu yor teen yoo xam teen buy tëjee moom man fii laa ko commencé gis moom musuma xam teen buy tëjee pneu di ca tàbbi lépp di ca tàbbi nit ñi di ca naan te doo dégg benn problème man daal affaire bi daal dëgg dëgg dëgg xam naa ni ah
gis nga la waaja ni woon nag gis nga léeg-léeg borom bi subhanahu wa taala ni nga koy bàyyee sa bopp génn wàkkilu gi da lay téyal boppam waaye saa boo commencé yëg ni mënal nga sa bopp dara rek sunu borom daal di récupérer lam cee woon gis nga yu baree baree bari benn waaye daf ma joxewoon benn misaal bi may nekk suma kër fii ma sàkket ko ma fàttaliku néew na sàcc dugg fa ma miire ko nit tëb dugg fa affaire bi doo xam lu muy nuru ndax yow ba si insécurité di am musiba ji gisoo ko fi bi ñu amee lu ñuy tuddee sécurité gis nga parce que bee fee loolu nga tolloon amoo loo defee lee wàkkilu nga ci yàlla wéeru nga ci yàlla léegi nag da ngay wane ni man nga bay defar nangam gis nga maanaam yu mel noonu toujours day am ci yeneen bunt yu bari borom bi subhanahu wa taala nag saa bu nit ki góorgóorloo digganteem ak ya ko war yàlla sàmmal ko ya ca des léegi loolu moo andi woon ñu naan axuka min ardaa fi ne ci wàllu takkum jabar xurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum ba aaya ja jeex am na ca wa axawatukum min ardaa soo demee ca suurtu nisa wala nga dem ci suurtu nuur fi ñuy limee jigéen yi nga xam ne mënoo leen takk bokk na ci sa sœur boo xam ni yéen a bokk yaay te bokk leen yaay yéen a bokk yaay te bokk leen yaay yéen a bokk yaay mooy benn ween boole na leen nàmpal bokk leen yaay mooy sa yaay bi la jur ci sukk jur la juru ko mooy lan jigéen jii nga xam moom day nàmpal ñu di ko fay way laa sax jigéen bu dul fay amul foofu jigéen ji nga xamante ni doomam dafa faatu am ku ne ci kër gi rek ku ko mën a nàmpal ñu ne nañ ko ko jox ndax loolu am na ñu doon volontaire ak a rëy nag fa yàlla jigéen ji am doom faatu bàyyi fi doom nga nekk jigéen ju wér man koo nàmpal jël ko di ko def ngir yàlla kese bu la ko yàlla fayee nga xam ni magasin ya fees na del te du jeex laa tax xëre na minal maaruf shay a mbaax bu ci xeeb dara léegi ndaw soos nga xam ni moom nàmpal na la moom la ñuy tuddee axuuka min ardaa ndaw si kam jur sa sœur lay doon at tey koo bokkal ndey ak bàyyi lay yore mënoo koo takk jabar ci misaal benn jigéen a ngi nii beneen jigéen a nga nee ndaw si bokkul ak jigéen ji dara kii bokkul ak moom dara waaye nag doom ji ndaw si nàmpal na ko gis nga ndaw si bi mu koy nàmpal xam nga kuy nàmpal day fekk am nga doom kam doon nàmpal fekk jigéen la yow mii góor nga ndaw soose nga doon nàmpandool daganatul ci yow mënatoo koo takk moo tax wa axawaatukum min arradaa la wax léegi yow sama est ce que mën naa takk doomi ndaw si waaw misaal ma joxe leer waa jii moom mënta takk ndaw si parce que daa nàmpandoog moom ci wenn ween mi ngi mel ni sa rakk la yow wala sama kon mënoo koo takk waaye yow sa mag ji nga bokkal yow ku góor gi est ce que mën naa takk magi ndaw si wala rakki ndaw si waaw parce que namp ndoowul ak moom yow yow mi namp yow mi namp ak moom yow la mbir mi concerné parce que namp bi sa biir la jëm moo tax alxuraan di préciser wa axawaatukum ba pare mi ne min arradaa gis nga fasatu yàlla boo xam atte yooyu nag moo tax islam ngay dem ci téere fiq yi ñuy indi atte yu mel lu mel ni moo tax fasatoom jaw la uxra keneen dina ko nàmpal sunu borom ni li yunfiq nay dépenser du saatin ku yàlla yaatal wërsëgam min saatihi ca fa wërsëgam yegg li yumfiq nay dépensé du saatin ku yàlla wa yaatal wërsëgam min saati ci nam yaatoo foofu nag gën naa yaatu fase kese gën naa yaatu fase kese gis nga góor gi nekk ci këram fase amul problème amul dara amul waaye yàlla may na ku mën a dund dund bu baax c'est normal ngay joxe dépense bu baax te saa boo yëkkati lu baax di ko joxe yëgal ni joxe woo fu gën foofu foofu nag maa ngi ciy soññ sama bopp awalan di ci soññ mbokk yi def lu baax am na solo lool waaye sa biir njaboot la gën a baaxe maa la ko wax def lu baax am na solo lool waaye sa njaboot la gën a baaxee yent yàlla bi ne li ngay joxe dépense sarax la góor ñi nag moom ndeysaan dañuy onk rek sarax yi naaw rek ñun ñëpp lay dal ñun ñëpp ndeysaan dama koy fàttali ngir ñu ñu bàyyiwaat ci xel weer wi dafa sori weer wi dafa nangam da ngeen nangam da ngeen nangam fekk da ngeen nangam yëpp ndeysaan mi da ngay wax ba pare yëg ñu def nga musiba nga jéggaluwaat yàlla subhanahu wa taala bu bu fekkoon du woon affaire yi boo rëccilee istiq gis nga bàkkaar yi bu amul woon éponge yi ñuy tuddee istighfar musiba am parce que da ngay wax dara pare regretté ci saase ni man li ma def du woon noonu nga tuubaat nga defaat ko ëllëg tuubaatal rek seytaan dane woon sunu borom bu soob lu ma man danaa ko def ba jaxasi leen ñoom ñëpp ñu toj àddina bi sunu borom ni ko fii ak ñu ngi def di jéggalu ma di leen jéggal gis nga kon yonent yàlla bi ne li ngay def ci sa njaboot loola tiyaabay sarax la li ngay def ci sa njaboot tiyaabay sarax la loolu tamit nit ki bàyyi ci xel da koy gën a may courage mu gën a waxuñu la nga yàq kolo lekk leen wasrabu naan leen wala tusrifu ñamu mbaam nag bu mu am ci kër gi lu ñuy tuddee ñamu mbaam bu mu fa am lu ñuy tuddee lu ñuy yàqaate di ko tuuri bu mu fa am waaye nag na ngeen lekk te mu doy léeg-léeg nga dem ci kër fekk góor gi mën naa joxe juróomi téeméer muy joxe ñetti téeméer kooku juum na léeg-léeg nga gis góor goo xam ne ñeenti téeméer la mën a joxe ndaw si ni ko faw di nga joxe 3000 ndaw saa ngay bëgg a tooñ dawaamul xaali minal mu xaal sax dàkk di mel nen dëkkut fenn bis bu nekk 2000 laay joxe dépense ah bis bu nekk du 2000 ngay am nag moom bis léeg-léeg dina ñëw nga yéesal de waaye léeg-léeg nga ñëw nga ëppal ko kat góor ñi nañu ragal yàlla foofu ndax léegi kuy joxe bis bu ne 2000 nga xëy benn bis yoroo lu tut 1000 francs ndaw si muñal la ko waa bis bi nga xëyee yow yor lu ëpp 2000 doo ko fay waxuma nga dem fay 1000 francs ba déedéet maanaam comme moom ni mu la koy muñalee wala boog yow da ngay te da ngay te da ngay gis ne góor gi boole ci naqari deret goo xam ne sum waay lii laa am mel ni yow sum waay affaire yi kenn xamul loolu lan la bëgg cee xeex te yow yaa joxe lu matu waaye nag jigéen ñi nañ ñu comprendre xam ni ku amul day naqari deret xaw ma loolu ndax góor ñi xam nañ comme déet nag ñàkk ak naqari deret ñoom ñaar ay seex lañ ñoom lañ ëmbandoo ñoo wasindandoo ci benn bis ñàkk ak naqari deret ay seex lañ gis nga jigéen ji mën a sëy nag jigéen ju mën a sëy dëgg mooy ki nga xamante ni bis bu nekk ab catalogue am la yore di jàng borom këram am na góor goo xamante ni bu weer wi sore rek mu commencé génn ay tànki bu kekki jikko yu kenn xamul gis nga léeg-léeg nga wàcc sum waay ndaw waa ji naqari deret nga wax ak moom mu xataraayu fii sippi la lépp fekk kalpeem lañ tafu yow lu sa yoon yow mi ci kër gi yow sa yoon néew ci di defoo ko ko waaye nag ahankay sa yoon mi ngi ci kat ndax boo nekkoon sakan li taskunu ilayha di nga fexe ba du yëg ni kalpeem wadd na waaye yaa matut li nga doon beneen bi ci des mooy góor gi mu bàyyi xel ni li muy joxe te fekk matut dëgg la du bor boo naan da nga koy fay ndax zu saatin min saati la yàlla wax kon bi nga war a joxe 2000 francs nga am joxeel 1000 francs waaye bu ëllëgee bu yàlla ubbee xéewal ragalal yàlla nag def min saati kooku mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy ki nga xam ne day eddaw yi nga ko war a defal ndaw si da nga ko doon jox nangam muy dépense weeram 50 000 muy dépense weeram ndax fere foofa la toll ci misaal mu dem bay eddaw rek nga daal di koy wàññi ba koo def ay vingt mille wala déedéet min saati defal li nga li la war te nga man ko wa man qudira alayhi rizqu képp koo xam ne sunu borom dafa gàttal wërsëgam téer fali yunfiq na dépensé mimma aataahu llahu ca la ko yàlla dénk fa poos ba toll rek defeel noona gis nga jigéen ñi mënante nañ ci bunt bi jigéen ñi mënante nañ comme ni góor ñi mënantee ca buntu bële gis nga am na jigéen ñoo xam ni boo nekkeek ñoom doo sonn parce que dañuy jéemal seen bopp li ñuy tuddee débrouiller comme ni ko góor gi jéeme donte nag waru ko waru ko nag waaye lu rafet la léeg nga gis jigéen nangoo ŋàbb ay bor ngir jëkkëram waaye gis nga lépp loo ci def te yàlla rek tax bis dana ñëw nga fayee ko bisa ngi ñëw léeg-léeg xéewal bett la fekk xéewal googu li nga def te yàlla tax moo tax mu bett la waaye nag indi ma jëndi suukar indi ma jëndi xorom indi ma jëndi kaani laaj jeex na loolu jigéen ju dofe dëgg moo koy def jigéen mooy lépp gis nga lépp kenn du ko laaj déedéet maanaam am na ci yoo xamante ni gis nga góor saa bu demee ba yëg ni njaram soow mii mu ñu defaral gan ñi xaalisam jënd ko léeg-léeg góor ñu bari tiit ne doo nangoo laaj fan la jóge nag da ngay rus ba doo ko nangoo laaj mu wóor la ni kii ndaw see ko lijjanti gis nga loolu dafa am lu muy yokk ci cofeelu ko góor gi lii borom xam-xam yi nga xam ni seen màcc dafa jëm ci sëy ak lu koy joyanti ak lu koy jagal dañuy wax lu mel noonu débrouiller gi ngay débrouiller di mottali tey de marché neexut moom waaye nag tey de marché bi ni mu neexee tamit de du ma dégg jigéen ñi di ko wax affaire daal jaaxal na ma léegi dépassé matut moom waaye nag weccit am yéen góor ñi gars yi ñi ngi joxe weccit jigéen ñi ngi joxe weccit waaw am na benn waay mas naa ko laaj am jigéen ju ni ma waaw am góor gu ni waaw moom dinañ koy jox weccit ba ne ko ah sa waaw ji bala moo tollanti ko ci keneen góor dana dana yeex de maanaam dëgg la li ñuy joxe matut waaye xëy na sax lu mu gàtt gàtt gàtt bis dana ñëw nga fekk jën tuuru yow bi ngay jiw sa jóge sa biir kër préparé woon ni jën day tuuru njëgu ñaat téeméer nga daan jënd tey njëgu téeméer nga jënd mu toll ni njëgu ñaat téeméer gis nga téeméer boobu boo ko delloo woon day yokk say point parce que góor ñi xamuñu loolu xamuñu jigéen ñëw di la delloo weccit moom la benn waaye di netti di naan gumba gi dañ koo sarax di ko sarax di ko benn bis mu laaj moromu gumba bi ni ko est-ce que tubaab bi defar këyit ndax këyit mi ngi am ba léegi xam naa dañ ko gëj a sarax maanaam góor ci boppam jigéen ñi tamaluñ leen delloo weccit ba loolu saa bu amee rek sok lay doon gis li gis nga li may wax nii du du ay caaxaan de lu am solo la ci wàllu sëy am na jigéen ñoo xam ne ci yooyu la ñuy amee ay point am na jigéen joo xam ni la muy amee ay point mooy du masa tontu borom kër xaw tuuti kon ma dëppoo ci ni góor yépp bokk yam góor ñëpp bañ ko leen tontu parce que góor jamono bi nga koy tontu li ko seytaane di yëgloo mooy kii daf may diir mbagg kii daf may nangam daf may tuutal te fekk sax demewut noonu am na jigéen joo xam ni moom point fi mu koy amee mooy borom këram moom du ko tontu lu mu manti wax rek man kay maa tooñ maa ngi jéggalu jeex na aka yomb jeex na man de maa tooñ même boo tooñut nangu ko parce que loolu dug rëy te boo rëyee doo mën a sëy gis nga yu mel noonu ay mbir la yoo xam ni léeg-léeg mën naa sabab góor di nga ko tamal loo xam ni ah caaxaan du leen teqale de jigéen dina nekk ak borom këram tamal ko loo xam ni caaxaan du leen teqale kasaalika nag góor dina yor soxnaam toppatoo ko noo xam ni caaxaan du leen teqale ku weddi laajal umu zara dafa abu zara da koo takk bi mu ko takkee indi ko ca kër ga toppatoo ko ba mu jekk benn bis xam naa ne yëfi jigéen man ko rek mu xuloog abu zara abu zara fase ko bi ko abu zara fase mu dem benn waay bu ñuy wax malik ñëw takk ko mu am ay fan rek mu ñaan baat malik biñ ko laajee lu tax mu ni abu zara daf ma fekk ca kaw ga mu indi ma ci taax yi sama ndigg li yépp sum waay mi nga nooxa nooxa noox maa ngi waw kong di nuroog lu kenn xamut daf maa defar ba sama kolli biir yi noddanti ko mu ni boo làmbee fii yaa ngi seen maa ngi am ndombay baat xam nga ndombay baat moom ku ko am moom xiifoo regg nga tuuti mu ni fa ba jaxanii mu may tëgal fa ba jaxtu may tëb tëbi takkal na ma min kulli sënfin or takkal na ma xadis bi yonent moo ko ne mi ngi saxi muslim de Aïcha ko doon nettali ak yonent sa ñoo ko muy takkal na ma ci ay xeeti or loo xam ni kenn xamut ah mu ni ndox laa daan naan léegi meew laay naan di wax di wax di wax ba àggal mu ni may fa ba mu fase ma nee na bi ma fasee benn waay bu ñuy wax Malik takk ma nee na Malik moo ëpp alal Abu Zara fuuf li ma Abu Zara doon defal Malik mën na maa defal ñaaram waaye bëgguma ko kee laa bëgg yonent bi siggi ree xool Aïcha ni ko kookaay Abu Zara kee mooy Ummu Zara man maay Muhammad yaay Aïcha kee daa fase kii man moom duma la fase bu soobee yàlla keroog guddi googu Aïcha war naa nelaw nga xam naa jigéen bu ñu waxee ba sa borom kër garanti la te yonent bi xam ngeen maa yantiqu anil hawa ku yàlla wax ni moom lu mu wax kase nañ ko jeex na kon amoon na garanti moom Aïcha ni ba keroog muy faatu kenn du ko fase moo tax borom problème fase bu ñu koy waxtaane moom lu ci yoonam gis nga de kon moo lay wan ni góor dina góorgóorlu tamal soxnaam loo xam ni dëgg la nag donte ibaara bii may bëgg a wax man ànduma ci waaye olof yi dañ koy wax doom yaral jabar reewalal wala yàqal parce que doom moom fu mën a am kër baayam la dëkk comme jabar fi la war a dëkk nag ndax te doom fu ne mën na faa dem kon yar ko fu mu dem rek formation ba lay jëfe jigéen nag da nga koy tamal ci kër gi loo xam ni feneen fu mu mën a dem du fa mën a toog léeg-léeg it góor def ko soxnaam mooy xissa ba ma leen doon nettali waaj a toog ba mu yàgg mu jóg mu ni mu daal xaaral ma dem man moom xajuma fii ndax man yéen da ngeen maa yépp sama jabar daf maa reewal ah koo xam doo wax ñu tontu la heure lekk day heure na buy nelaw sax ñu ni puus leen fii sëñ bi day nelaw boo jikkee fii gars yi di la kuntaa ba ñii di la wax puusal fii ñii to mu ni man sama jabar damaa reewal mu daal dem ñibbi loolu am na de ay nit yoo xam ne wax dëgg yàlla ñañ nekkal ñu ngi góorgóor gis nga yii nag li tax ma di ko wax mooy dafa am alaaqa ak waccante xaanal azan man yoon sunu borom subhanahu wa taala mu ni kon li yunfiq nay dépensé du saatin borom kattan ak man-man ci wërsëg min saat yi ci wërsëg ko sunu borom dénk wa man qudira alayhi rizqu képp koo xam ne wërsëgam sunu borom da ko néewal kon loolu def defe sunu borom la bokk na ci jigéen ñi fi ñu mënantee mooy xam ne diw bokkul ak man jëkkëri diw bokkul ak sama jëkkër loolu nañ ciy bàyyi xel léeg-léeg bokk na ci ba yàq sa yi jigéen day dem marché yore ak leget kee yore pañe nga feesal kii mënta feesal gis nga loolu dafa bokk ci liy yàq da la yàlla taggee jigéenu ajana yi jigéen na fexe mel noonu mooy xaasiratu tarf gàtt sa bët yem ci li sa borom kër am am na jigéen ñoo xam ni fi ne ku ñuy àndal di nduggi bis bu nekk nga ndugg ndawal seen yoon newu ci parce que seen poos borom bari na coow lu am ci sa biir kër fekk li ko waral diw daa dem ci xewu diw wa gis lal ba coiffeuse ba dikk indi lépp potu lamb yooyu jigéen ñi nañ ci bàyyi xel gis nga wërsëg yi yàlla tollalewu ko kii ci néegub ñax lay dëkk kii ci néegub tabax lay dëkk kii ci zeng lay dëkk kii ci ardoise lay dëkk kii junni lay am dépense kii ñaari junni lay am kii day xotti yëre yu riche kii mënta xotti yëre yu riche yàlla nam ko dogalee wardo bi ma xasama allahu lak gërëmal li la yàlla sédd takun agna naas yàlla xam na ni ni mu amee ñu yàqu ci bunt boobu am na jigéen ñoo xam ne ma sha allah la quwata illa billah li yàlla wërsëgal seen borom kër dañ ko doyloo ñooñu yàlla na yàlla bari seen i kem ndax ñooñu la société bi soxla tey borom bi subhanahu wa taala mu ni wa man qudira alayhi rizqu ku wërsëgam gàtt fal yunfiq buy dépensé mimma ataahu llah foofu tamit góor gi na ci ragal yàlla takalluf kenn tegu la ko takalluf kenn tegu la ko léeg-léeg tabaski jot yow wóor na leen tabaski sax mënoo ko yow nga ne faaw danaa ko def defoo fal yunfiq mimma ataahu llah parce que yaa ngi bëgg a teg sa bopp coono xarum juróom-ñaari junni nga man nga ni faw rek di nga yeew xarum cinquante nangam mille yàlla du la dimbali de parce que da ngaa defut lim la sant lim la sant mooy yunfiq mimma li la yàlla mooy li ma la jox defal loolu mbokk yi xoolal ay jooju defal li ma la sant yàlla nee na defal li ma la sant defoo lim la sant ba pare nga bëgg ndimbalam yent mi ne da ngay dem nga jël lu araam sa bopp cuqaaral sa kawar gi pënd ah ngay lekk lu xaraam ba noppi talal loxo naan yàlla may ma yàlla yent mënu ban yàlla moo lay may ban yàlla fan na ku koy nangul kon da ngay def liñ la sant doog am ndimbalal suñu borom warda bima qasama allahu lak gis nga njaga njaay yi nga tollol paasal foofu super nga duggal foofu taxi nga am defal ku nekk lam am yàlla moo bindee noonu fal yunfiq dépensel mimma ataahu llahu li ko yàlla jox laa yukallifu llahu nafsan yàlla muy teggu mu benn bakkan illa ma ataaha fële mu ni laa yukallifu llahu nafsan illa wasa lu dul li nga man bu dee ci ay jaamu yàlla gis nga de ca baqara bu dee ci ay jaamu yàlla teguma la loo mënut de fii sunu borom mu ni teguma la lu dul li ma la wërsëgal fal yunfiq dépenseel mimma ataahu llah li la yàlla jox nga yam ca bu yàlla yokkee sa wërsëg nga yokk bu wàññeeku nga xam ne foofu nga yam sunu borom mu ni nag maa ngi leen di bichara ni sa yajaalu léegi nag comme de léegi def deg classé nañ kii am na kii amut te yàlla moo sédd ñëpp te nag taxtal machi la ko teg ci coobare la séddalee wërsëg yi affaire bi ni ko suñu borom séddalee nii la de kenn ku ci nekk li nga sa wàll rek nga jël bu kenn yaakaar ni sa wàll suñu borom da ko jox keneen gis nga bis boo ko foogee yonent yàlla ne ba ngay jéem a wut wërsëg wu la yàlla joxut da nga daw ba sonn te doo am lu dul la nga war a am sunu borom mu ni sa yajaalu llahu yàlla mu ni dig naa leen ni dinaa def baada usrin ginnaaw jafe-jafe yusran yombal dana ñëw gis nga yàlla ko kéemaane la gis nga jafeñ-jafeñ keroog ba mu taree yëgal ni keroog la xéewal di yegsi ndeysaan da ngay gis ku muñ a muñ a muñ a muñ ba terrain gi yépp ndimbalam yàlla mi ngi korne mu yàq muñam wallahi mi ngi am da ngay gis ku muñ a muñ ba otoraay bi yépp ndimbalam yàlla di ñëw mi ngi korne xam nga kuy korne sore tut waaye ba nga koy dégg loolu mooy lan loolu mooy da ngay gis koo xam ni di man de muñ naa ba sonn man de keroog nga yàqule muñ amul sonn naa ci sharia waaje nee na da ngaa muñ muñ muñ mu dama muñ ba bëggee mu ne ko muñaatal mu ne ko muñ mu ne ko muñaatal loo gën a sonn rek keroog boo gënee muñ keroog la gën a ndimbal gën a yegg si gis nga de waaja nee na yow mi nga xam ne yaa nekk ci ay problème ba affaire yi tar dëgg-dëgg ah abshir bi xayrin fa inna alfarij allahu bégal ci yiw wuyu aaja egsi inna alfarija kii xitaliwaate huwa allahu mooy yàlla te moom dafa bokk ci aram da lay bàyyi ba ba nga dég dégagé ñëpp xatta ida stay asar rusul bañ dee ba découragé jàpp ni affaire yi yàqu na wasannu annum xat kudibu affaire dara dootul baax su ba ataawum nasruna sunu borom ni ndimbal ma yegg si yaquba ca yusuf ibrahim ca sawara sa ayuba 18 ans ca feebar ba da ngay dem bañ yaakaar ni kii sayee yàlla andim ndimbalam moo tax léeg-léeg ndeysaan nga muñ ba yàqule borom bi subhanahu wa maanaam nga nga nga nga muñ ba war a continuer yàqule te fekk yaa ko xañ sa bopp muñ amul yamukaay wasbir muñal muñ naa ba jeexal mu ni xanaa wa ma sabruka illa billah xanaa yàlla taxatul koy muñ léegi yàlla amul fa muy ay mbiram di yem wasbir muñal dama def ba sonn mu ni fa inna allah la yudo ajral muhsinin li ngay def rafetal te yàlla nee na li nga def lépp dara du ci neen bi fasbir muñal ah waaye muñ gi na rafet fasbir sabran ji muñ gu rafet daa waxuma la muñ goo xamante ni sooy muñ nag ñàkk pex la wala bu du woon ak diw am nga sens perte nga sa yajaalu llahu yàlla muy daa def baada usrin yusran ñaata sëy ngeen gis seeni borom am ay jafeñ-jafeñ mu tar lool ñu jëfandikoo aaya ji tey jeex na bañ fàtte nga xam ne ñoom suñ toogee di waxtaan sax bëggatuñoo di nettali problème yooyu ñaata nit ñoo ànd ak seen soxna di souffrir soxna su rocceeku dem bala nga des ak yàlla yàlla indi xéewal man nettali nañ ma koo xam ne noonu la ko yàlla ne mu yoroon ay soxna yore alal xëy xëy rek ndeysaan alal ji dem soxna yépp ba ko yàlla mi nga xam ni yuqallibul umuura kayfa yasha mu jékki-jékki rek buntu xéewal benn société jëlaat ko wërsëgam ubbeeku waat gis nga de ayuba gis ngeen ko njaboot ga faatu xarit ya dem soxna sa des fa ba yàlla ci coobareem mu ni ko wér ga soxna si ku kenn ku gore ka moom mi ngi desoon ak moom waaye gis nga muñ mbokk yi ak bishaaraat yi ak gëm yàlla ci jamono boo ci tolloo te di ko ñaan day indi xéewal imam ahmad ibn hanbal mi ngi nettali ci musnad nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ca jamono ju yàgg ja nee na abi hurayra mooy nettali abi hurayra abi hurayra mooy nettali nee na benn waay ak soxnaam dañoo nekk ci ay jafeñ-jafeñ jafe-jafe yi mooy lan ñoom ñaar yëpp ay jaamukati yàlla ñu baax lañ waa ji génn voyage yi ñëw ëndaale xiif ba butit yi di weñaaru ndax xiif mu yegg si rek ni gëlës fekk kër gi tus néew fa lu ñu mën a lekk mu ni soxna si gaawal boo jeexee tuuti ma dee gaawal nga indil ma lu ma mën a lekk allahu akbar góor gu xiif ba ay butitam mënta taxaw ñëw ci sa biir kër ni la indil ma lekk te fekk lekk amu fa kooku boo ne ko lekk amu fa loolu rek mën na koo dekk ray far moo tax gis nga jigéen hee jigéen ju dofee bon ci kër gis nga jigéen ju dafe mooy koo xam ne xamut daanaka xàmmiwut buñ bojj ak buñ boxam moom daal lépp rek na jël xëlëb ndaw si ak xikmaam ak xereñam ku xiif ba toll foofu te dara amu fi lan laa koy def boo nee ko lekk amu fi kooku mën naa misère mën na ko rey ndaw si ni ko xaaral tuuti taf taf rek ma ñëw ndaw si làqu ci ginnaaw xool nan laay def ku góor ki woote gëdd gaawal nga indi li ñu lekk mu ne ko ubbi naa ok dañoo am lu ñu tuddee tannuur tannuur mooy genre fuur comme fuuru ban yooyu ngeen di gis nga xam ne ñoom comme dañ doon faral di am gan da ngay gis koo xam ne day rey bay léegi lakk ko léegi léegi ndaw si xalaat xalaat jafe-jafe yi moom mi ngi xiif jëkkëram mi ngi xiif te problème am na nu muy def mu tàllal ay loxoom yàlla yow yàlla lii de yow dong yaa ci man dara semaine bi passé am na sunu benn xarit nee na dafa nekk ci ay jafeñ-jafeñ xaalisub jàmbur daa wadd fekk da doon julli ci jumaa nee na bi xaalis bi waddee te xaalisab jàmbur la nee na bi may ñaan ma ni yow yàlla fi mu ne nii moom lu mu waxat defe naa dani xuma ayatul kursi yi xaju fi léeg-léeg léeg-léeg léeg nga gis saalit goo xam ni ci loolu la suñu borom di sukkandiku pour indi la ndimbal fi mu nekk ni ayatul kursi yi xaju fi julli ci yéen ah amana rasul xaju fi te yow yàlla li xew xam nga ko mu ne ko ayatul kursi yi xaju fi amana rasul xaju fi te yow yàlla fi ne li xew moom xam nga ko kenn du la ko nekk kenn du la ko nettali nee na nee na noonu la ñaanee ñaan gi li may wax ni kee fekkee na bi ñu koy nettali nee na mu daal di ñëw fekk quatre-vingt mille jàmbur la waddal yoo xam ne da koo àbboon ci seen jàkkay koñ nee na bi mu ñibbisee xam naa xam naa diggante bi nag amante rasul xajoon na fi wax dëgg yàlla nee na bi mu ñibbisee mu daal di ñëw tëdd nee na keroog damaa teel a tëdd réeru ma sax nee na ma tëdd ba guddi rek benn jigéen bu nekk ca dëkk sàngam woo ko téléphone ni ko sama jëkkër daf maa fase te moom xam nga ko dafa dëgër bopp yow rek yaa man ci moom dara ndax damaa dem ngénte mu ne ma bul fanaan fekk magam def benn choc mu fanaan te tàggoowut nee na mu ne leen jaare leen foofu bu leen dellu soot ci kër gi mu ne ko yow rek yaa ci man dara nee na ma xëy mu ni sàllaa bi may dem paas bi dama koo àbb nee na ma daal di dem ca raison boobu fajar teel nee na maa leen yee nee na bi ma yegsee waa ji ni ko yow loo fi wut mu ne ko li ma fi wut kay xam nga ko mu ne ko ana diw su muy soxna si waa ji ree comme mooman ci moom dara mu ñu waxtaan ci gàttal ba waxtaan wi jeex nee na muy ñibbi waa ji yëkkati enveloppe boobu cent mille francs ni ko jox ko ni ko boo demee muy damaa yegsi rek bala ma teg say bagage ma dem fay quatre-vingt mille jàmbur ya réeroon sa yajaalu llahu baada asrin yusra ma dellu si xisab ma doon nettali ndaw si mu ne yow yàlla fi ne lii yow rek yaa ci mën dara mu xalaat xalaat amul pexe xam nga lu ndaw si def ndaw si dañu man xam nga dañuy am ñoom dañuy am ay machine walukaay bokk na suñ machine yi waaye walukaay raxaa lañ ko doon tuddee lu ñuy walee mu ni man naa dem ca walukaay ba rek wakkilu ci yàlla lu ma fa fekk jël gëm na ni ñaan na yàlla ñaanam du nangu nee na mu dem ca walukaay ba yëkkati mbuus gi rek fekk fa sunguf su fa nekk mu ni lii moom wóor na ma ni teguma ko fi nee na ma fëgg ba sunguf si gën a wadd ma jël comme am na commencé kóolute ci yàlla mu ne ah xaaral ma dem ca tànnur ba ca fuur ba mu ne ma dem fuur ba rek fekk benn yàpp yàpp wu ñuy monsieur mi monsieur mi ngi tege ci kaw kii bi mu wóor ma ne lii kenn tegu ko fi ma boole ko defar ko gaaw ëndi abi hurayra mu ni giñ naa ci ki nga xamante ni mu abi hurayra mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na giñ naa ci ki nga xam ne bakkanu muhammad mi ngi ci loxoom bu fëggul woon morso ba da koo jël rek dem yoonam bu ñëwaatee fekkaat fa seneen sunguf la ilaha illa allah wala allana natazakkaru qissata abi hurayra abi hurayra nee na dañoo dem ci xare yonent bi alayhi salatu wasalaam daan ni ku yore tàndarma na indi ndax gaa yi xiif nañ mu ne man yore naa tuuti yonent bi ni ko indi ma ñaan ci yàlla def ci barke nee na maa ngi ko def ci li ñu tuddee gafa ga mooy genre nafa yooyu nga xamante ni dafa kii mu indi ko mu ne ma jox ko yonent bi mu tiim ko ñaan ci tafli ni ma séddaleen abi hurayra nee na may séddale mbooloo maanaam ci misaal kilo tàndarma nga séddale ko waa jàkka jëb loolu daa mën a nekk nee na may tibb di joxe di tibb di joxe di tibb di joxe pare affaire bi jeexul yonent bi ni ko sa yoon bu mu nekk ci li ci biir la abi hurayra nee na gis nga xam nga yonent bi faatu na aboubacar faatu omar faatu ñaata at aboubacar def na deux ans omar def na daanaka lu mat ay dix-huit ans wala lu ko jege osman daanaka def na ñaata treize ans xaw ma douze ans xool nga loolu ni mu bare nee na fa ma wékk gafa gaga saa bu ma soxlaa damay yor sama loxo rek génn tàndarma nee na benn xare laa dem ma jël nafa ji takk ko sama ndigg ndeke takk bi raccantal gi dafa mbas nafa ji rëcc wadd nee na keroog laa mosee gis nafa ja yàlla ma nga fam ne woon ba tey de ñun ñi ñoo wàcc la fi newoon jógu fi waaye ñu ko def na woon ñoo fi newul gis nga ba tey ci suba ñaan mu nangu ci saasa misaal bi ma joxe sànq bokk na ci waaye ñaan mu nangu ba léegi mi ngi am li may jeexalee ci sa ja allah baada usrin yusra mooy ñu gëm ni maanaam yàlla lim doon jagleel ay jaam yu baax ba léegi jaam yu baax yi ñi ngi fi ba léegi moom mi ko doon joxe ñu ngi fi defe naa dars bi ñu fi defoon fii ci jàkka ji ci wàllu ñaan ak dars bu ñu defoon fële te ñu enregistré woon ko ci qara'un kayfa taqra'u abwaaba sama naka ngay fëggee bunti asamaan nettali woon ko ca dellu da nga gis ay xisas yu bari ay waaqi ay la ay nit yoo xam ni ñenn ñi mën nañ tudd ni di diw la dal donte lu mel noonu nag kum dal fekk yaa ngi dund bañ koo wax mooy li gën bu dee yow la dal balaa nga ciy gis sa bopp waaye illaa bu dee keneen da nga bañ a wax ni diw la dal balaa muy gis boppam ca loola waaye yëg leen ni yaa ngi ja nekk ak ay nit di rombanteeg ñoom di leen xeeb fekk na yàlla defal na leen ci kéemaanu ñaan léegi mu nangu léegi fi saasa xam nga ñaan sax moom sartuñ ci na nangu léegi léegi léegi waaye gis nga mbir yi léeg day toll fa xam da ngay ñaan léegi mu nangu léegi defe naa mos naa ci nettali waa joo xam ne dafa xëy am problème biir këram xamul nu muy def mu toog jaaxle sonn sonn xisas yi bari na bii rek laa ciy wax waaye bi mu demee ba jaaxle ba jaaxle xelam mu ni waa man téemaa dem kër diw ma leb ko ba mu yàgg mu ne ah diw daal bëgguma séqante dama ko rus daal nee na fi mu toog di xalaat rek diw moomu ni dareet taxi ci luñ programmé wut ci luñ foogut waa ji mu ni ma toog ak moom ñuy waxtaan xam naa comme xëy na mën nañ nekk ay xarit yu xamante woon bu yàgg walay demee noonu nee na ñu waxtaan ba waxtaan bi yegg mu mel ni ko yàlla yabaloon rek nee na mu jug di ñibbi waa ji nee na ma jug di ko gunge nee na bi mu ko gunge ba ci buntu kër gi rek mu daal di génne cent mille francs ni ko lii de mën nga ko dimbali ci sa njaboot tamit nee na kooku laa doon xalaat pour mu lebal ma gis nga de kon yu mel noonu tey mi ngi am ci feebar ci ila axiri ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal mu tawfiq boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy gëm suñu borom dëggi-dëggi gëm te it aayaat yi ñu mën koo jëfee mu mën noo jariñu xëy nu ngi yëgal mbokk yi ni am na sunu menn mbokk moo xam ni waxoon nañ ko fi jamono yi passé dafa feebar ba sonn lool wax dëgg yàlla ku ñu xam la ñi ko xam ñépp insha allahu ci pas-pas bu set lañ ko xamee ayaamul biid ci li ma xam man ayaamul biid yi passé la woote wut di ko fàttali nit ñi ndax ma nga ci lalu hôpital li may wax nii ñi ko xam ñépp ku ci ubbi sa portable di nga gis ay message yu yàgg message ya su ma juumul bokk na ci mooy mbokkum julit ñun de li ñu am fii ci àddina bariwut xam nu mu ko doon tëggee maa fàtte waaye daal façon boobu la nañu góor góorlu la ñu am àllaaxira mooy lañ fa yóbbu ñetti fan a ngi ñëw yoo xam dañ ko war a woor wo lii moom defe naa ñu baree baree bari man kenn laa ci da leen di bind leen fàttali kenn nga leen nee na moom da koy def am na ku ma woo téléphone di ko ko yëgal nee na ma yële passé moo ko fàttali am na ku ma woo di ko yëgal mu ne ma xanaa du mooy ki daan fàttali ayaamul biir yi xam ngeen loolu neex la dafa feebar na dafa sonn lool maanaam sonn bi dafa jéggi dayoo soxla nañ ci ñaari mbir nag bi ci njëkk mooy ndaw la lu tolloon ci di yëngatu te sunu mbokkum julit la ku yàlla wërsëgal loo xam ne mën na ko ko dimbalee ci faju ndax feebar ba metti na sonn na léegi ci ngoon am na ku ma woo di ma wax ni ma dem na ba daanaka wax sax fi ne mënatu ko ndax sonn léegi balaa maa ñëw dars ma ne woon su ma yegsee naa ko yëgal mbokk yi ngir ñaari mbir bi ci njëkk mooy dañ ko ñaanal yàlla ndax ñaanal sa mbokkum julit bi zahiril ghaib bi dañ koy nangu beneen bi ci des mooy képp koo xam ni tey ba suba yàlla wërsëgal na la ci sa alal loo xam ni bu doon yow yaa tëdd foofa wala sa mbokk moo fa tëdd yéene nga ko mu jub ñu dajale ko insha allahu ñu yóbbul ko wax dëgg yàlla niñ ma waxee léegi ci kon sonn na lool ba jéggi dayo ndax ki ma woo bokk na ci lim ma wax nee na ma bi ma ko mujjee seeti waxul ak man benn baat rek la wax ak man mooy fi mu nekk nii sonn naa daal di noppi nee na baat boobu waxaat ak moom beneen te loolu xam ngeen wax dëgg yàlla metti na trop foo ko takk romb na ko te it nag comme ku ñu xamoon la ci yëngub daawa lii dama ko doon joxe comme benn misaal rek waaye yeneen yi ñu ko xamal ci yu baax bari na trop nu bokk di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci turam yu sell yeeg melokaanam yu kawee suñu borom saafara ko wéral ko delloo ko ci sagoom defal ko tawfiq kafaaral koy bàkkaaram jéggal ko ila axiri beneen bi ci des nag ñoo ko man mooy wallahu fi awni al abdi ma dama al abdi fi awni akhi lépp luñ dajale insha allah dinañ ko ko yóbbul di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak taysir wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain